ajala komin ko añin statement o bota mola bulo kono e ka famiye komin ko pa samba diaw anum pa samba diaw a gambe nola mati petrodek mati fana mola mi yalan a fana fintita baka politiko kono le bare ñin kuma kango be kala fennati mi yalan komin a gambe safo yalan gambe la kuwol folo bake a modol ba interpret a interpret in a different way sister linger am am abanun diamo la diamo kono ay fem fo mi yalan ko important akabe fenna I come, coming komo jama ba ajala in another way around. But uh, when you are say, um, saying the truth, you should not be scared. Sister Linger, you were saying something important. Indeed, Black Queen, nee naa leen ragal dafa jeex ci sama jëm ji. Mhm. Dé ben la. mënul doon ñaar. waaw waaw Té man sama tollu damay fëgg sama dënn bi gëm lima doon muy lan talibé Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala mhm. Euh ba taxna lima doon wax moy ka né mhm. anna ñi nga xamante ne ñoom advice his Excellency President Adama Barrow. Fofu lay duggé ci yow. man nangul li nga wax lool. Waye gis nga advice xam nga moy lan. advice mooy ñun ñii ñoo ànd yéen ñaar yéenay samay advice <laughs> ñu ne Jamil ñëw ci place bii ma ne ah ñëw nañ ci place bi de damaa bëgg wax nangam ak nangam. <laughs> ngeen wax ma waaye ngeen yéenay samay advice ñu ànd ma ne yéen jii de ma ne na ngeen def eh caméra bi fi ngeen ko teg fi ngeen ko teg du ñëpp ngeen jàpp seen loxo. kon advice yi amuñu problème de. waaye est que laaj nañ leen. est-ce que laaj nañ leen euh, c'est très important waaye est-ce que xam nga ne am na si advice yoo xamante ne dañ lay advice li ñu la war a advice nga jël ko teg ko fa ne yëkka bu kooku ragal la nga neex kooku advice ragal la déedéet bokkul bu ñu la waxee ne la boo demee nii nga war a doxalee lii ak lii ak lii waaw yow nga jël ko taxañ ko teg ko nele def lu la soob ah, kooku la kon ci moom la Ah, xam nga loolu tamit dafa nekk mbir moo xamante ne dafa important waaye tamit ci beneen côté ndax ñi nga xamante ne ñooy advice yi ñu ngi ko advice li nga xamante ne loolu lañ ko war a advice ah, ah, a woto ñima kuulate mi yalon komin ka kummayata bakele a bayri yo momoronde je duniya kono amari ñanta pour que mosutole momi yalon ko amari ka yamarle a ñing angalel ka fa e komin ko ñing advice a mbe min fo ka wala ñinte komin ko de a his excellence his excellency a president adama baro a ñing amu amu mansalati bari ngamera mol la fana mbako ma mol mi yalon komin min ko ñin itolla ka yamari ka advice ol diyala woto ñin fo ñin ataka walla yamarol tala ban walla walla ka yamaro diyala mi yalan ko ka cangina kono woto a ah, sister linguer anen sek ah, sekandanan mm. a ah, alla kuma kango ñiñata bakala beteyata a woto mbe mu nekkala doron a we will just bala mm-hmm. mm-hmm. ki nga xamante ne nii moom mooy oustaz Malick Ndiaye oustaz Malick Mbaye sorry mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu di la ziyaar yaa oustaz di la ñaanal yàlla di ko sàkku ci yow envoyé sa message mhm. ah, yaa ngi wax ne da nga bëgg a oote waaye su fekkente ne da nga bëgg a bokk ci programme bi mun ngaa call ah, plus 220 286 0150 ñu ngi nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy DJ Face moom itamit mhm. tàyyiwul sonnul benn yoon ci ànd bi nga xamante ne mu ko ànd ak Sahel Network ah, DJ Face thank you so much di la nuyu di nuyu sa waa office yi tamit mhm. wax dëgg ci seetaan bi nga xamante ne yéen a koy seetaan Sahel Network yaa oustaz di wax ne di number to call is 0150 we have a very short commercial break and we will be a jannimɓe so a importante bakele mol mi yalan komin koye tolla kam mol a dj face ketam moti mi yalan komin ko ah, everyday ni mol naha dorong ñing a ah, kala time ah, ko a ka kol de yalan network tv la programme o de monen so thank you so much Let's have a short commercial break and we'll be right back. What on the Street is next. Stay connected.